alhamdulilahi rabbil alamin wa salli allahuma wa sallim ala abdika wa rasulika sayidi almursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain mbokki jullit yi noo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala di leen dénk di dénk sunu bopp topp ko ci def ay ndigalam ak bàyyi ay tereem gannaaw loolu ñu xam ne jaamu yàlla bi am xel mooy ki góor góorlu ba fexe ba ak dundam mu yóbbuloo ci loo xam ne daf koy jariñ gannaaw boo xam ne génn na àdduna àdduna bii nu nekk dafa mel ne benn bayukaay waaye nag nekk bayukaay boo xam ne bu gàtt la dunduk àdduna dafa mel ne rek waxtu boo xam ne bu gàtt la jaam bi ci nekk ne ma góor góorgóorlu ba waxtu bu gàtt woowu mu feesal ko ak topp yàlla te xam ne bakkanu doomu aadama dafa bari ay xemmem téef waaye jéem koo tënk nag ba mu doylu ci baax a baax la lu koy dimbali la doomu aadama na xam ne waxtu yi mu fi am luñ konte la mënu koo weesu noo yim fi nara nooy yi nangami noo la su ko nooyee day génn àdduna loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ña fi jiitu woon jaar fi kenn ku nekk am fa ay fanam dem ñi fi teew te noonu rek la ñuy def ñay ñëw ëllëg it noonu rek lañuy ñuy def ku ñëw ku ne daal waxtu ya nga fa amoon ak ci minitam danga nga ko jeexal bu jeexee nga dem kon mbokki jullit yi bokk na ci yërmaande sunu borom tabaraka wa ginnaaw dund googu dafa gàtt te jullit bi li muy mébét ëllëg dafa rëy muy lu toll ne àjjana war faa dëkk ba faw moo tax sunu borom tabaraka wa taala amal nu ay fan yoo xam ne daf caa def ay barke ba bu ca nit ka jaamoo yàlla day doon ay at yu yàgg yàgg yàgg fan yooyu nag mu doon ay tereet yoo xam ne at mu nekk day teru maanaam at mu nekk mu ñëw am na ci yoo xam ne mën naa doon weer am ci yoo xam ne bis la am ci yoo xam ne sax ay bis lay doon yu tegaloo bis yooyu jullit bi dafa war a góorgóorlu ci jéem koo màng fexe ba saabu bisub tereet accès gaa mi ngi woon ci jaamu yàlla lu jiitu loolu waaye nag mu yokk ak jaamu yàlla am ndax mu mën a màng foofu loo xam ne dina ko mën a yóbbuloo ëllëg ka yoroon ay bàkkaar te ñëpp yori bàkkaar ñu gën a tuub gën a dellu ci seen borom tabaraka wa taala mu jéggal leen tereet yooyu nag daf cee bokk weer wii nu nekk muy weeru Shaabaan ñi di ko tuddee baraxlu nga xam ne mooy weer wi jiitu weeru ramadaan weer la woo xam ne weer wu barkeel la weer wu bari itam ay ngëneel la moo tax umul muminin aïcha radiallahu taala anha daf doon wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam day lim daan woor ci weer wii nu nekk muy weeru shaabaan daawu ko woor ci wenn weer lu dul xanaa ramadaan waaye daal weer yi ci des daal wii la ci ëppale woon lu muy woor dem na sax ba ne da daan woor ramadaan léppam waaye ñu xam ne léppam jooju mu wax li mu wax mooy li ëppam maanaam li ci ëpp ndax waxin la arab léeg-léeg mu ne lépp yow mi ko dégg defe ne lépp nga wax waaye fekk li ëpp la wax moo tax loolu beneen xadis moo ko firi boo xam ne daf ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kaana yasuumu shaabaana kullah boobu boo ko déggee lépp ngay wax waaye beneen bi ci des def ne amata mooy li ëppam kon li gën a bari ci Shaabaan la daan woor yonente bi alayhi salaatu wasalaam Usaamatu bnu Zayd radiallahu taala jële na ci moom mu ne dama ko wax ne ko man dey damaa gis ne weer wi su ñëwee li nga ciy woor ci naafil la doo ko woor ci weneen weer ci naafil la mu ne ko li ko waral day weer woo xam ne nit ñi dañ koo sàggane Shaaban dafa doon weer woo xam ne nit ñi dañ koo sàggane ndax dafa nekk ci diggante ñaari weer yoo xam ne wenn wu ci nekk nit ñi dañ ko koy ittewoo weer wi wenn wi mooy rajab mooy weer wi jiitu Shaaban wi tegu ci moom mooy Shaaban mooy Ramadan moom mu nekk seen diggante muy ñaari weer yu màgg ndax kenn ku ne xam na ne rajab ci al ashhurul xurum ci la bokk te chaabaan moom bokk ci ramadaan ñëw tegu ci di ramadaan nit ku yeex danga naan kon nan góor góorlu ca weer wa ko jiitu woon ak wa ca tegu daal di koy sàggane moom loolu li ko waral mooy ñàkk a xam ngëneelam moo tax ñu bari jàpp ne woor ci weeru rajab dafa gën woor ci weeru chaabaan waaye mbir ma du noonu maanaam woor ci chaabaan wenn wenn weer gënut woor ci chaabaan ah xanaa ramadaan bi nga xam ne woor ca dafa nekk farata waaye koorug naafila ci chaabaan moom moo gën gu mu mën a doon moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon ko baril mu doon gën a bari yépp li ko waral it mooy ñaare bërëb boo xam ne daa doon jaamukaayu yàlla wala waxtu jaamu yàlla boo xam ne ya ko séq dañoo siiw ci baax ak màgg am wu nekk ci diggante bi woo xam ne siiwewul noonu lu gën a bari boo yeexee rek nit ñi dañ koy sàggane te nag màng waxtu wu mel noonu woo xam ne nit ñi dañ koy sàggane nga góor góorlu ca dafa am yiw wu mag muy am tuyaabaam day gën a bari loolu moo tax asalafu saalix dañ daan dàkk waxtu woo xam ne doonul waxtu nit ñi fonk di ko julli maanaam bariwut luñ koy jullee lu tax ñu di ko def mooy suñ leen laajee ñu ne lii waxtu càggante la maanaam waxtu càggante la lu mel ne diggante timis ak gee ñu naafila fa ay la yoo xam ne yu takkoo takku la suñ leen laajee ñu ne lii waxtu càggante la maanaam nit ñiy jóg waxtu woowu di ko la bariwul dañu julli timis rek ku ci julli sa ñaari rakka daal di génn dem buñ noo daatee gee nga ñëw julli waaye nag toog nag ba nit ñi julli timis ba dem ba noppi nga des fa julli fa ay la diggante boobu waxtu càggante la kon lenn ci asalafu saalix dañu daan dàkk waxtu woowu di ca julli ay naafila suñ leen laajee ñu ne kooku waxtu càggante la loolu moo taxit yonente bi alayhi salaam wasalaam julli gee léeg-léeg da ko daan yeexe ba xaaji guddi jot maanaam ba cinquante pour cent ci guddi gi jàll saxaaba yi toog di ko xaar ci jàkka ji mu door a ñëw julli benn bis dafa génn dikk fekk ñi di ko xaar ba ñenn ñi di jeexu di gëmmentu fekk wi jot na wala xaaji guddi jot na bi mu agsee mu xool leen ne leen amul keneen ci kaw suuf day kuy xaar waxtu wi ci jamono jii nu nekk kon kooku daal di doon gëneel lu rëy kon waxtu la woo xam ne nit ñëpp julli nañ ba nelawee bu yàgg ñoom ñu toog di xaar julli gee kon guddeel ko ci anam gu mel noonu léeg-léeg doon na loo xam ne day am gëneel kon jaamu yàlla ci waxtu woo xam ne nit ñi dañ koo sàggane kon ndekete waxtu am lu am solo la dafa am tuyaabay boppam li ko waral nag moo di ne jaamu yàlla googu day gën a nëbbu maanaam dafay Eh, day mucc ci njistal te xam ngeen ne xeeti naafile yépp la ca gën mooy boo xam ne nit ki daf koy def mu doon loo xam ne dafa nëbbu rawatina lu mel ne koor nga xam ne moom ak jaamu yàlla diggante nit ki ak boroomam moom la ca cosaan mooy daa war a nëbbu nit ki du koor koorug naafilaam xëy dajeeg nit ñi ne leen tey dama woor te fekk laajuñu ko ko dëgg la nag dara mën naa xew kooku am ku ko bëgg a jox muy lekk ak yu mel noonu te fekk mu woor sañ na leen waaye su boobaa mën naa mos ci ngis mucc ci ngistal ndax sabab moo tax mu wax ko waaye génnul rek di ko publicité noonu di yëgle ne man damaa woor kon loolu lu mat a bàyyi xel la ci ne e, jaamu yàlla goo xam ne dafa nekk ci waxtu woo xam ne nit ñi duñ ko faral di fonk def ko ca di gën a màgg kon loolu moo tax e, naafile yooyu nga xam ne da koy def foofu nëbbu gi muy nëbbu jaamu yàlla gi nëbb bi muy nëbb loolu moo tax ndax bu dee waxtu siiwut nit ña duñ ca bàyyi xel sa digganteeg sa borom rek lay doon ba tey it moo gën a diis nag ci bakkan ndax su fekkee daa doon waxtu woo xam ne mbooloo mépp dañoo àndandoo di defandoo nga nekk ci seen biir di def la nga yëg ci cawarte akuk ànd akuk defandoo loolu bokkut ak nga xam ne yaa ko jëlal sa bopp gàddul ko sa bopp foo xam ne kenn yëgu ko kenn gisu la boo ko seetoon ci naafile ramadan yi di ñëw rek nit ñi niñ ciy saware ci jàkk yi ak niñ koy jullee boo wéetoon di ko jéem a defale bopp sa bopp noonu da nga yëg ni moo gën a diis moo gën a diis àndandoo ga ngay àndandoo te nag jaamu yàlla yi la chaque ne la ci gën a diis te fekk dafa tegu ci sunna loolu moo ci ëpp tuyaaba la ci gën a metti ba noppi tegu ci sunna loolu moo ci ëpp tuyaaba kon loolu ci li dàq ñuy dàq waxtu yu mel noonu loolu ci la bokk moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na xadis boo xam ne dafa wax su waxtu fitna dikkee waxtu fitna su dikkee nit ñi nekkatuñ ci sécurité nekkatuñ ci jàmm ñu ngi ci ay musiba ñu ngi ci ay jafe-jafe nee na ka jublu jaamu yàlla di dem di jaamu yàlla moom kooku mu ngi mel ne ku gàddaay jëm si ci man mu ngi mel ne ku gàddaay wuy si ma kenn ku nekk xam na ne gàddaay wuy ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu rëy la ci liy far ay bakkaar la bokk ci liy yëkkati ay daraja ci la bokk lu tax ndax fitna bu amee li gën a bari ci nit ñi seen bànneexu bakkan la ñuy topp kon dafay mel ni dañoo toppi seytaane waaye su fekkee jublu nañ jaamu yàlla dañoo mel ni kon gàddaaya nañ ci seytaane ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax mu nuroole ko ak gàddaay jëm si ci moom alayhi salaatu wasalaam kon ñu xam ne it ki nangoo sonn ci di woor koori ngàtt nga yi ñuy woor ci saabaan loolu dana ko protéger ba mu gën a fonk koor yi nga xam ne koor farata la kon ki nga xam ne dafa xir lool ci di woor ci rajab di woor ci shaabaan di def ay naafilaam ni mu waree kooku moom kooru farata gi kenn waxaalewu ko da ci góor nekk noonu même naafile yi julli yi julli yi ki baaxoo di ko naafile di ci góor góor di ca def lu baax julli farata moom kenn waxaalewu ko da koy def waaye nag bu nit ki bàyyee li ñuy tudde naafil la moo xam ci julli la moo xam ci koor la defatu ko day mel ne farataam dane fàng maanaam kuy tëb rek ca ngay yem amul dara loo xam ne moo nekk ci diggante bi di ko protéger loolu ci njëriñi naafile yi ci la bokk kon ñi xam ne woor ci weer wi ki koy def di ci farlu du ci sàggan kooku kenn waxaaliwul ne loolu dana ko sàmm ba ramadaan moom du ko sàggane seytaane itam du ko ca mënal dara kon kooku ci tomb yi mat a bàyyi xel bu baax a baax a baax ci la bokk am nag euh, xadis boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf cee wax ne bu fekkee ne chaabaan dem na ba xaaj bu leen woorati maanaam bu demee ba am quinze jours loolu la ñuy déggee ci xadis bi am na ay mbokk yu koy jël déggee ko noonu rek ne bu quinze xasee jot moom daganatul ñuy woor waaye fekk demewul noonu al imaamu tirmidi mi solo xadis bi ni ko firee daf ne li ñuy bañ mooy nit ki wóorul dara ci saabaan bàyyi ba xaaj bu mujj bi des ci mu ne xaaral ma woor ko nag gàttandoo ko ramadaan loolu la ñuy bañ woor ko gàttandoo ko ramadaan waaye su fekkee ne da doon woor koor gi agsi mu continuer kooram loola dara nekku ci loolu moo tax même bis bi ñuy tuddee yow mu chàkk muy bisu sikki sàkk ndax weer wi feeñ naag feeñut am na ñoo xam ne dañ naan naa ko woor rek bu bokkee ci weeru koor bi alhamdulilah bu ci bokkul tam mu doon la loolu dañ koo tere waaye fi ko tere mooy fan mooy ku mu fekkul woon ngay woor lu jiitu loola maanaam bu fekkee nag danga doon woor yow masalan da nga ne damaa woor Shaabaan lépp bis ba ñu sikki sàkk ak ñu sikki sàkk boo ko boolee woor ko lépp kooku dara nekku ci loolu itam faw ñu bàyyi ko wala ko xel Abu Hurayra radiyallahu taala anhu indi na xadis boo xam ne mooy tegtale loolu yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf ne kenn ci yéen bum gàttandu weeru koor akuk koor maanaam mu woor di ko gàttandoo ramadaan moo xam bis la moo xam ñaari bis la moo xam benn fan la wala ñaar mu ne lu dul nag koo xam ne da koo fekkoon muy woor nee na kooku moom na woor kooram ki fekkoon mu ne ci kooram na woor kooram kenn terewu ko mu gàttandu ramadaan yàlla na sunu borom tabaraka wa taala defal tawfiq ci nu mën a góor góorlu ci naafila yi ak mboolem bépp xeetu jàmm yàlla boo xam ne nit ñaa ngi koy sàggane nu fexe ba dundalaat ko jéem a góorgóorlu ci weer woor ci weer wi nga xam ne ci lañ nekk euh, gàtt góorgóorlu ci bu baax a baax tàggatu ci itam ci woor weeru koor ndax am na ñoo xam ne seen koor bariwut ci at mi su ko defee góor góorgóorlu gën ci góorgóorlu it ak tàggatu la ci ñoom ba bu ramadan dikkee doon koor weeru farata ñu man koo woor nam jaadoo asalu allah taala an yajal amalana xaalisan li wajhihi alkarim wa muqarriban ilayhi ila wa muqarriban ilayhi wa ila daarih daari salaami wa naim almuqim wa an yanfacana bihi wa cibaadahu almuminin wa an yuwaffiqana lima yuxibu wa yarda wa yaxtima lana bi xayrin fi caafiya fa innahu akramu alakramin wa arhamu arrahimin allahuma aciz alislaam walmuslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa salli wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa aqim alsalaa